leen nuy rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës autis ca Kédougou soxna si di Doura Mami moom moo doon mucc far ñàkk bakkanam bin koy rewle anam yan nag yéen ko doon rewle moo indi jiixi jaaxa foofu ba procureur de la république sàkku ñu daldi amal lii naan kon ab autopsie buñ sukkandiku kon suñu ndaw lañu teewal fële ca Kédougou di leen ci ñëwaat ci nam gën yaatoo ba tax na sax ñi nga xamante ni que ñooy xeex ak ak lefu malade yi ci hôpitaux yi bëgg kon lii jeex fii ci senegal ndax dem moo Njaay amoon na ca Louga kër docteur it ña ngay réunion fële ca Kédougou procureur bi sax moom moo sàkk woon kon ñu def ab autopsie ngir xool kon lan moo faat soosee soxna ca jamono jooju dem ca Goléré nekk kon ca foofu nag fleuve Sénégal bi sàgganul mën naa rembat ba ndox mi wala ngaan dem ci kër yi bëgg nañ askan wa ñu indi ci saafara li ñu nemmeeku mooy saa su tollee fii ay bakkan da cay ak yàqu-yàqu yu bari ba tax na kon ñi ngi woote wàllu ca kilifa ya safar li ci des bariwul reportage bi tey rue 22 angle 36 la ca Médina foofu nag am na lu am solo loo xamante ni ña ngi ko fay def muy ay nataali ku tedd ki Serigne Touba Khadim Rasoul ay tamit ñu bëgg ko faa développé rek muy woote taal i nataal doon ko exposé ca mbedd ngir xamal ko ndaw ñi ak tamit liñ doon woote muy jàmm moom sëñ Touba moom it ci mbiram la ni daal di taxaw ndax kii di Maam Balla Mbàkke ab livre la daal di bind jagleel ko moom it ku tedd ki tuddee ko cocktail Ilp la des gouttes sucré salé ngir rek daal di delloo ndukol Sëriñ Touba Xaadim Rasuul mi nga xamante ni kon moom moo fi sos yoonu murit ci les bon feuilles de la rédaction la dinañ ci ànd ak Ibou Diouf laata Cheikh di fi teew moom ci kàllaamay wolof la wante it ci tàggat yaram dinañ demit ca Touba ngi wéy li ngeen fa doon siiwut sànq en direct muy concours international ñu jagleel kon wàllu njàngum kaamil mu mel ni kon fële ca Kédougou autopsie ba génn na wante résultat yi nag si wala gun ko bu sukkandikoo suñu ndaw la ñu fa teewal muy soxna si nga xamante ni kon moom moo nekk ci xëtu suñu naataango yu libération muy Doura Mami Diallo la tudd da doon mucc nag moom césarienne nañ ko bëggoon wante rek euh, voie normale ba mu doon jaar rek moom ak doomam mujj kon làqu ci anam yu doy waar ba tax na kon rek procureur de la république près le tribunal ba nekk fële ca Kédougou moom daal di bëgg kon ñu daal docteur ci jamono ji kon ñi ngi rek daje seen biir am na ci sax ab anesthésiste ak gynécologue ba nga xamante ni kon ñi ngi ci garde à bu buñ sukkandikoo kon suñu ndaw la ñu teewal fële ca Kédougou di Ibrahima Jabaxate dina ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo ak tamit association bi nga xamante ni moo ëmb ñiy xeex àq ak lefu Kër Malade tuddee ko kon patient en danger dina ci ñëwaat yaatal ko ci nam gën a yaatoo ñu waxit ci débordement fleuve Sénégal muy nawet bi nga xamante ni kon ndox mi bari na ci atum ren bi ba na ca Goléré dëkk ya nekk foofa daal askan wa génnoon nan ngir daal di yëglu ndax saa su tollee fii bu ndox mi amee ay nit dañuy ñàkk seen bakkan amit ay yàqu-yàqu yu bari yoo xamante daal bu sañoon nit ñi daal di leen ci wàllu si mbay béy moom wax ci kàddu woowee askan ci micro Ousseynou Diop ak Abib Seck. la ñu ñaan xëy golleer la xëyee foofu ci marché bi la ñuy dem foofu la ñuy jaayee foofu la ñuy jindee mbaa Medina bu ñu amee tamit ku feebar foog ñu génn dëkk bi te ndox bi daf ñu tëj carrément. gaal yi amuñu liñ ci am doyul yoon bi la ñu ñaanoon pour ñu defal ñu ko dañu bëgg bu ñu amee ñu am fii pont boo xam ne chaque année ci la ñuy jaar su loolu ni ñu dindee nii chaque année dafa am ñuy gaañu ci di leb ci ndox mi léeg sax ay gaal leb fekk nit même bu ci nit deewul li nga duggoon pour jox ko sa njaboot bi lépp tuur ci ndox mi loolu nag jafe-jafe la léeg boo xëyee suba si dangay dem ba 3 heures 4 heures ba 4 heures quelque soog a añ ndax jafe-jafe ndox mi feebar tamit bu ñu amee ku feebar jafe-jafe la balaa muy jéggi pour mu dem Goléré walla Mbumba wala Madina wala pour mu dem Njum jafe-jafe lay doon. centre de recherche géotechnique nekk fële ca Kolda ñuy xeltu ci wàllum càmm ñoom it am na lël boo xamante ni amal nañ ko ca boobee diwaan ngir xool jafe-jafe ya boobee barab di jànkoon tekk ngir rek dimbale waa askan wa surtout jamono ji nga xamante ni daanaka àdduna wërngal këpp ñu ngi ci ay jafe-jafe am na it loo xamante daal bëgg nañ ñu indi koy saafara ci soose jafe-jafe ngir rek kon képp ku yëngatu ci boobe secteur ñu mën la cee jàppale Abdoulaye Diallo. ngir jëmale ca kanam wàllu recherche agricole ci diwaan yu sud est centre de recherche technique bu Kolda moo fi dalal ab ndaje bi ñu duppee rencontre de pré-programmation scientifique des activités de recherche agricole. di wëccante xalaat ak euh, béykat yi ak producteurs yi ak yeneen acteurs yi euh, comme les instituts publics euh, tels que DRDR. Euh, ak yeneen ONG yi ak yeneen projet nekk au niveau de de Kolda donc euh, ñu mun a déglu et jël seen xalaat ci ñu ko mun a euh, mettre en rapport avec nos activités de de recherche. léeg-léeg kuréel bi ëmb bépp chercheur agricole muy ISRA dañuy faral di jànkonteel ak ay jafe-jafe yi aajowoo ñàkkum koppar mu waral ñu bari ci ñi teewee ndaje bi dal di fësal seeni jooyu xol ndax mu am ñi taxaw temm ngir saafara yooyu jafe-jafe. parce que recherche dafa laaj euh, ay effort yu bari foog nga am xaalis d'abord foog nga am temps donc des aussi loolu yëpp du daje peut état bi mu ngi jéem à travers ñu jéem Euh, gën a ñoŋal recherche bi mais des fois état du mën du tout le temps lay mën a def moo tax ñu def benn plaidoyer pour acteurs yi nekk au niveau la région de Kolda les ONG les associations beaucoup de partenaire en tout cas pour ñu dugal seen loxo ci recherche bu ñuy def pour njëriñu région bi. avant ñu yegg ci état bi mais mën nañ am. projet et programme yi car macha allah boo jëlee diggante tàmba Vélingara Kolda bi Sédhiou ba projet et programme yi fi nekk tamit ñu yëngu ci wàllu agriculture bëri jàpp nañ ni ki bu ñëwee ñëpp am benn plan d'action bi nga xam nañ harmoniser seen activité ñu mun a permettre ISRA mu am ay ressources conséquentes bi leen ndaje doon occasion pour waa ISRA daal di fësal seen résultat wu recherche yi ñu fi jot a amal. ñu des ci alam ba léegi ak fële ca Jolof rawatina kon Tessekere Wiidu ak yeneen diwaan ya fa nekk foofu nag agence bi ñu dénk mbiram grande muraille verte ñoo fa nekkoon ngir jëmbat fa ay garab lu toll kon ci quatre cent trois mille hectares ak it garab yu bari daal di nañ ko fay bay rawatina yoo xamante tamit ay fruits lay mujj a jur rek bëgg nañ rek kenn li nga xamante ni li tubaab naan kon désertification ñu daal di koy xeex looloo taxoon lu jóg boobee projet ci noonu dañuy déglu Abdoulaye agence nationale grande muraille verte ci micro du Moustapha Ndiaye ak euh, kii di Sidi Thiam. daanaka suñu bureau yëpp la ñuy tëj ci semaine ñëw fii ngir jàppale leen ñoom ñu xam réyalité yu nekk ci terrain bi. mënuñu liggéey ci terrain bi te ñu nekk ci bi suñuy bureau te xamuñu li xew ci terrain bi ñu am ay juróom-ñaari junni gune yoo xam ne dañuy liggéey ak ñun guddi ak bëccëg ñu nekk ci terrain bi te xamantewuñu ak ñoom voilà kuliyaan ñu dem saafante ak ñoom xamante ak ñoom liggéeyandoo ak ñoom ci terrain bi ba ñu xam problème yu nekk ci terrain bi ñu ànd ak chef de village yi ñu ànd ak ak citoyen village yi ñu dem wàcc ci terrain bi. na jaaw jege si. moitié lu toll nii quarante mille trois cent garab. ma fi ñëw nag. def jaaroon naa Touba ñu jëmbat fa ay garab gis nañu tamit jafe-jafe yu population bi di jànkonteel ci terrain bi dem nañu ba comprendre que ñun ñoo leen war a déglu parce que ñoom ñoo fi dëkk te ñoom ñooy njëriñee ñun lu ñuy def comme que ñoom ñooy njëriñee ñun lu ñuy def dafa am solo ñu ànd ak ak ñoom ci terrain bi munoo jëmbati ay garab ci àll bi yëpp te nga jànkonteel nga am problème ndox problème ndox il faut ñu régler ko parce que nawet bi ñaari weer wala ñetti weer la de ce fait que problème ndox boobu loolu moo tax ñu def partenariat pour ñu mun a jàppale si ndox mi ñu wax ci mbiram diine gàmmu ko Tiwaawoon ren it eh, ñu ngi koy waajal ginnaaw kon lu toll ci ñaari at yu mu amul ndax eh, coronavirus bi am na de spécial bu amoon fële ca gouvernance bu Thiès ngir waajal xew-xew boobu ba tax rek am na ay matukaay yu kilifa yi ne dana ko jël ngir wàllu wér gi yaram ànd ceeg Cheikh Anta Diop ak Ousseynou ak Seylatir gàmmug ren gii de dina nekk gàmm gu mucc ay gàmm guy bari nit ndaxte bu ñu toogee ñaari at gàmm wu ñu Tiwaawan ñi ngi xaarandi mbooloo mu bari ci Tiwaawan loolee tax gouverneur bu Thiès nee na daa ñu jël seen matukaay lu jëm ci wàllu sécurité kaaraange askan wi jëm ci wàllu wér yaram ak ci wàllu dund bi loolu lépp waxtaane nañ ko ba lépp dina yemb. principalement sur la sécurisation du chantier. de la grande na xel dal sécurité bi nañ ko yokk bu baax a baax rawatina jumaa ji nga xamante ne nekk na chantier foofu yëpp dinañ ko wërngal ndaxte dina am ñoo xam ne dañuy ñëw bëgg dañ ci kumpa ñiy jóg ngir def ñaawteef nañu xam ne dinañ fa fekk takk der yi wàllu dund it waa service du commerce nee nañ dina doy ci Tivaouane. de la ville en denrées de première nécessité. Serigne Moustapha Sy Al Amin xalif général des Tidiane yónni ko mu jëmal délégation bi nee na woon na famille bi ak taalibe bi yépp ñu ñëw Tiwaawan te lu jëm nag ci aaru ci jàngoro ji di coronavirus nañ ci taxaw ndaxte ba léegi feebar baa ngi fi. am na lu mu coïncidel muy Covid ñaari ati Covid mayewul ñu gàmm lu dul xanaa gàmmu chef soi moom la mujje tey mu ni nañu ko def te nañu wax ñépp nañ ko waajal bu ñu demee ba yegg ci guddi gàmm mu dalal ñépp ca Tiwaawan ñépp ñëw na mu ko waxee sax mënuma koo wax moom matam yóbbaale ma géew moo tax ñu wax ni kon bu dara sedd wax na gouverneur nañu jëli pexe aar ñiy ñëw ci gàmm gi rawatina Tiwaawan ak dëkk dëkkaan yi ko wër ngir ñu gën a yokk sécurité bi xew-xew diine bi gën a jege moom mooy màggalu Touba ñu nar ko amal fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi ñu dëgmal kon muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar wi teeru boobu ak kon am na ñeenti fan ci noonu nag reportage yi leen di defal saa su nekk ci sunu édition d'information tey ñu dem ci rue 22 angle 36 nekk kon ci Médina foofu am na ay exposition ci ay photo nataalu kilifa diine yu mag ci yoonu murit ngir rek xamle ko ndaw ñi am it tax a jóg ñoom ñi mëbët lu mel tam yu ñu fay développé ngir woote jàmm lépp luy fitna ñu xeex ko ci askanu senegal ñu ànd ci ak Fatima Touré ak Youssou Baro rue 22 angle 36 Médina soo rombee gis photo Serigne Touba Khadim Rasoul ak i njabootam ne fang ne dajji ci mbedd mi xasaay di nag di jollee fu ne. décor bi soo gisee ñu def ko dama ko xeeb sax bu ma sañoon dañuy indi ay numérique. def ko fépp ci medina fii ñëpp fiy jaar won waa àddina yëpp ne leen ba sub Serigne Touba ñëw na loolu lañ ci jublu moo tax ñu indi ay photo sëñ Muntaxa mi nga xam ne yàlla na fi yàgg te wër. julli ga ca mbaayom mbaay. édition bi nag safar bi dafa rek am thème ñoom ñi ne nag jàpp ne paix sociale doon na li nga xam ne war nañ ko fësal saa su ne. safar gi li ñu ci woote mooy. campagne de sensibilisation pour la paix au Sénégal jàmm li tax jàmm war a am ci la lépp tënku ci àddina bu jàmm amul dara du mën a am sëñ Tuubaa mii ci boppam mi ñu yaakaar ba di def safar bii bu bu wootewul woon jàmm kon tey safar bii ñuy def tey du am moo jekku ay noonam jéggal leen kon kookoo moom jàmm àddina war a rafet violence yi nañ ko bàyyi te teg ko fële amul njëriñ bu dul woon gi ci wolof na ngir wëyal li nga xam ne nag moom la Serigne Touba gënoon bëgg mu di liggéey ñoom ñi ne nag nara a benn soxna soo xam ni saa su nekk dañ koy gis rek mu nekk jàmbaaru fakk tëdd liggéey rek moo ko ñor. ren nag dañoo fekk jigéen bu nekk ci Medina koo xam ne daan dooleem rek lay def yor ci njabootam yor ci jëkkëram di ci def ay teraanga ci liggéey boobu fii lay romb bés bu jot ak puus puusam. di for ay xollitu orange di ko yóbbu di ko jaay nay defar parfum yi di defar cere di defar ay màdd lu ne mu dugg ca ngir ngir am lu mu suturloo loolu moo tax ren ñu tànn ko def ko koo xam ne dañ ko indi fii ren pour teral ko pour won doomu aadama yi ne ak xale jigéen ñi ne leen du ay greffage yu jekk du ay du ay yéeg ci ay moto du ay lambar lambar du ay dem ci boîte de du ay dem ci leneen li am solo mooy liggéey. bu bi nag bu teroo ñoom ñi le nag daati namm amal cant bu rëy ca Médina ngir daati wone œuvre Serigne Touba Khadimou Rassoul di jàmbaaru l'islam bu mag. ñu des euh, ci màggal googu ak rubrique euh, bi ñu leen di indil alxames mu nekk tuddee ko bon bonnes de la rédaction tey Ibou Diouf daje na ak euh, bindkat bi di Cheikh Amadou Bamba moom it rek di yëngatu ci wàllu xaatim téere moom mi nga xamante ni moom moom mooy maam Balla Mbacké moom bala Mbacké moom kon livre bi mi ngi ko tuddee cocktail il pleut des gouttes sucrées salées muy loo xamante ne ñëw na ci ndukkal li mu delloo Cheikh Al Khadim tamit lépp lu jëm kon ci ay bayit yu mu fi bàyyi moom mi daal di sos yoonu murit ñu ànd ci kon ak Ibou Diouf ak Mouhamed Dieng. ci bile téere bindikat bi jël na xalimam ngir delloo njukkal Cheikh Ahmadou Bamba loole mu jaarale ko ci lu ñu duppee poésie maanaam di xeetu taalif. am na benn. Uh, maanaam xasida benn poème bu ñu jagleel Serigne Touba te jàpp nañ ne loolu lu jaadu la ci képp koo xam ne nii maanaam ab murit nga wala ngay sénégalais wala ngay africain ñun nag euh, bokk ci njabootu sëriñ bi mënuñoo bind téere te duñu delloo njukkal sëriñ bi. cocktail mooy njaxas euh, njaxas nag moom lu ñu boole la waaw àdduna am na lu neex am na lu naqari am na lu baax am na lu safaanoo njaxas boobu nag day ñëw ci euh, maanaam li nga xam ne ni maanaam. ci nit ki dundam mën naa dajeek moom. bindkat bii nag mu ngi fàttaliku yenn saay loo xamante ne di dund wala sax mu doon ay yéeg-yéeg loolu tamit may na ko mu delluwaat njukkal kenn ki nga xamante ne mooy way juróom bu góor Serigne Cheikh Mbacke suñu waajur bu góor la euh, di doom El Hadji Mame Balla Mbacke ak soxna Maguette Sarr mu nekkoon ku jàmbaare lool ci yoonu murit dem na fu bëree bëri ci senegal ak ci Afrique di fa jàngale ak di fa wone Serigne Touba ak di jàngale tamit yoonu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu nag ci bile téere ñëwaat nañ ci lenn loo xamante ne dañ koy gis ci kaw suuf mu yee xeetu njàngat bindkat bi di ci sukkandiku ji ci joxe gis-gis. ñaare liy puus nit ki mu bëgg a bind ci poésie mooy dafa am déggin boo xam ne nii maanaam day xaw a am solo lool mën nañu wax sax ne day xaw a am suukar ci déggin mooy la wax musicalité waaw lool moo taxoon ñu bëggoon ñun. Euh, thème yu bëri yi nga xam ne ni wax nañ ci lu bëree bëri waaye li ñu doon wax ñu fexe ba jaarale ko ci yoonu poésie mooy xasida ni nga xam ne ni moom it noonu la ko Serigne Touba doon doon tënkee ci yu bëree bëri ci ay ci bindam. muy ab téere boo xamante ne poésie la mu ñëwaat ci li nga xamante ne moo waral mu def li ni mel delloo njukkal Cheikh Ahmadou Bamba ak ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikh Mbacke bi ñu daan duppee le lion de Bamba. bu journal bi jeexee dañuy demaat kon ci Touba dégtal leen direct bi ngeen doon seetaan sànq jëm kon ci konkur boobu ci wàllum njàngum alxuraan euh, laataa loolu kon Cheikh Tidiane Diaw gi moom ginnaaw bi ma la nuyoo lan moo gën a fës ci xibaaru tàggat yaram yi. Euh, marché transfert yi euh, moom la ñuy tijjee jamono ji nga xam ne marché bi tey ci guddi la war a tëj su minuit jotee ñu bàyyi xel ci sunu internationaux yi bokk na ci Bamba Dieng fële ca Olympique de Marseille ci ay xibaar suñu sukkandikoo. ci journaliste italien bi di Fabrizio Romano euh, nekk spécialiste ci mercato bi nee na waxtaan am na ba jubo euh, ci diggante Olympique de Marseille ak Leeds kon attaquant équipe nationale bu Sénégal boobu fële ca Angleterre Leeds la nar a yeggale ak carrière am euh, transfert bi nag ñu ngi koy estimer lu toll ci fukki million ci wàllub euro mu mel ni situation bu ma ngay bëgg rek lew ndaxte Bamba Dieng bi saison bi tijjee ba léegi ci ay jafe-jafe la nekk ak waa Olympique de Abdou Diallo moom tamit sa Paris Saint-Germain mu jóge fa tey jii la doon amal visite médicale am fële ca Allemagne Leipzig moom défenseur international euh, sénégalais bi nag dañ ko fa ale Paris Saint-Germain dañ ko fa ale payan la euh, mu war a am li ñuy wax option euh, boo xamee ni équipe bi mën na ko lever sur saison bi jeexee pour jënd ko Allemagne di championnat boo xamee ni Abdou Diallo xam na ko bu baax ndaxte jaaroon na foofu ca Borussia Dortmund moom moom euh, défenseur bu Sénégal euh, kon marché bi dinañu ko topp ba xam fu muy mujjee ak suñu gaynde yi euh, ci mel ni Ismaïla Sarr moom tamit ñu ngi ko doon tudd Crystal Palace waaye dafa mel ni yëf yi dafa mujj lajji ba ñu ngi wax Aston Villa sax mi ngay defaat maanaam offre ngir jënd ko waaye Watford dafa laxas jaan ci mbir mi ñu wax ci wàllu basket Chérif ak Sénégal. Euh, mi euh, bëgg organiser cinquième fenêtre éliminatoire Coupe du Monde kii euh, di maître Babacar Ndiaye nekk président fédération bu sénégalaise bu basket confirmé ko tey jii ci suba bi mu nekkee invité info matin mu ne nag liñ ci jublu mooy yombal qualification Sénégal ci Coupe du Monde boobule moom maître Ndiaye tamit dañu xamal ni ñu def seen kéemtalaay kattan ngeen fexe rek ba fenêtre boobu góor gi si ak Ngagne Diop Desagana bokk ci ñu teewlu ko. ci micro xalaat bind nañ fi ba pour que vraiment ñu mën ñu la fenêtre de février ñu organiser pour pour pour voilà pour gagner. li gën a yomb nag moo doon buñ gañee su ñetti match yooyu mu amul sa ay calcul da ngay qualifier directement donc moo taxoon ñu ne nan la ñu mënoon def pour que mu de mën ko organiser au Sénégal. pour mën a mën a mën a yombal yëf yi même su boo xoolee organiser rek taxul nga gagné parce que Tunisie yi nii nekk champion d'Afrique organisé am ñaari défaite si dëkkam. ñu waxtaan xam nga ñoom NBA ak Euroleague ñoom obliger wu libéré seeni joueurs. ñu mën a libérer seen joueur mooy yeneen kii yeneen fédération yi mais ñu ngi xool ak euh, entraîneur bi di xool ak Gorgui Sy Dieng ak son nouveau club yan démarche la ñu war a mën a def pour que mois de février ñetti fan la yàggul euh, ñetti fan ñeenti fan ñu mën a ñëw pour participer si tour commune bu Diamniadio euh, ñoom dañoo am ay jafe-jafe ci wàllu infrastructure euh, ngir rek euh, mën a pratiquer sport tàggat yaram ci anam yu mucc ay ayib Mamadou Moulay Guèye nekk maire bi bëgg rek ñu jàppale leen ci loolu nag mi ngi ko wax ca cérémonie remise de subvention ASC yu nekk ca localité boobule dañ koy teewlu moom maire ba ki taataan ay kàddoom di Abdou Diouf Diagne. di xaw a naqar ndaxte jam ñaajo fii mu ne egg na foo xam ni fii euh, war naa am euh, stade ay terrain yoo xam ni xale yi dañ ci tàggat seen yaram muy muy muy football muy basket muy même jeneen activité sportive yi te benn stade rek la ne fi am mooy stade municipal bu nekk Sébi Ponti te stade boobu chaque année nag on met beaucoup d' pour kii ko mais xam nga am na yoo xam ne yii vraiment defaraat bu laaj wóor la laaj faut mettre beaucoup beaucoup d'argent yàlla def na sax yaa jeux 2006 yi JOJ yi am nañu délégation bu fi ñëwoon APIX Ageroute na nañu ba dem foofu ñoom ils vont reprendre entièrement ce stade là en peu jëmale ko ci avant 2026 kooku moom c'est c'est calé 2026 c'est déjà calé mais loolu doyul dañu bëgg beneen stade bu mag ak yeneen terrain de basket voilà euh, maire Diamniadio ngeen doon déglu noonu Chérif Dialli moo fi gënoon a fës ci xibaar ci wàllu tàggat yaram. ñu sant la gërëm la Cheikh Tidiane euh, Diawo mbokk yi kon ñu dem dégtal leen li gën a fës ci yenn kaay yi ànd ci ak Alaaji Assane observateur ànd bi di bu yeewi ak wàllu la jàpp ne du sori ak xëccoo présidence assemblée nationale ca nag ci gis-gisu yéenekaay bu groupe Futur Média tas ga mu ngi xeeñ la ko waral bokk na ci Ahmed Aïdara maire bu Géejawaay mi lànkategaat ci suuf nekk nam nég mbër ci yóotug toogu président assemblée nationale ak maître Abdoulaye Wade ci wet geneen gi tànnal waa wàllu Lamine Thiam ne seen ak mbër ci source a Ahmed Aïdara di ci joxe leeral ci li waral mu doon mbër ak wërsëg yamu ci am ngir jële ca ndam bokk na ca mu ne gën caa gàtt ñeenti député benn bokk yaakaar ñu ko dig woteel di ay député yu parti socialiste waatal nañu ko ko mu ne conférence des leaders nag ginnaaw bi ñu taayee ci ñàkk koo mun a yey ngir mu tegaat yëfi ci suuf moom Ahmed Aïdara ci lañ joxantewaat ndaje seen biir alxamis tey ngir yeneen ni diisoo le journal dafa laaj ne yeewi ndax dina mucc cib kalaate cib tasaaro ak Ousmane Sonko mi ñàkk ànd cib ndajaleem ndombay tànk Barthélémy Dias mi taxaw ngir boole ndombay meeru Ndakaaru ak nekkaale député na bokku moom la opposition bi ci la tribune mooy ñu liggéey ci lu leen di jubóole ci benn candidat ngir présidence assemblée nationale ci le quotidien Thierno Bocoum di dànkaafu nag député yi ne assemblée warut a doon ab séddoom ngato Birahim Seck moom yeewi askan la jàpp ne dinañu war seen programme bopp ndax taxawal groupe parlementaire yu bari ci assemblée mooy yokki dépense rek ci lu safaanoog lañ daa dig askan ci wàllu sakkanal seen koppar ak yeneen la tribune ne député yi kay la ñu nas mooy am alal ci ñaq ak askan wi groupe parlementaire yu takku yu dépense yi neen la la ñu fas yéene waajal ñoom député yi ndax yëgle nañu xaar juróom-benni groupe parlementaire muy ñaari wàll yëpp nag di nguur gi di opposition bi ci gàttal yéenekaay bi ne seeraas la ñu fas yéene soppali pénc ma ak ngëneel ak avantage yi nga xamante ni membre bureau ya ak président groupe parlementaire ya dañ ko gàddu PDS moom am lu ko doy soxla ak ëllëgëm gi yox yox yi ci gis-gisu laas ay démission yu takarnaase ñàkkum leadership ak njiit lu nu gàddaay loo donte kenn ci ñoom Bassirou Ndiaye ci yéenekaay bi ma nga ci naan ci lu yàggatul Karim Wade dina ñibbi si Sénégal ci dinañ ko 2024 loolu nag ku bokkoon ci ñoom ca Bademb muy docteur Cheikh Dieng mel ni ku ko gëmul ndax ci source a ma nga cay mel ni kuy njortal PDS ab baara yu googu ndax ma nga ca naan moom lu mu gëm mooy Macky Sall bawoo ci nguur gi 2024 bokkul ci ñiy baara yëgoo ngir muñal ko professeur Ibou Sané politologue moom ci yéenekaay bi di source a ba tey la mu gis ak tolluwaay PDS mooy maître Abdoulaye Wade doom ja Karim Wade rek ko ñor képp ku fa nekk doon militant rek wala mott ca mu ne su Karim Wade amoon amnistie tey la traité ji ci direct news Mamadou Lamine Mansali moom ma ngay dal bu baax ci kaw Mamadou Lamine Diallo la mu yàq nguur geeg Macky Sall mu ne ay fenti kese la fàttali na ko fi mu ne saraxu gum fa doon jamono poste ministre des finances président Macky Sall Mamadou Lamine Mansali ne amul jotog wax ju sew ndax la mu bëggal Sénégal di yokkute gu sax àndul ak waxi picc l'info ne Mansali taxaw na ngir doon bàyyi faalu Macky Sall Macky Sall mi mu gis ne 2012 ak léegi soppi na bu baax Sénégal ca a tegu la su wër boppam ci gàttal ci xiidi mii la ne ak coowal troisième mandat 2024 noonu bennoo gi mu bëgg benn le beneen kàngam ci wàllu politique gu ne ci xiini mii Xalifa Ababacar Sall enquête ñëw ci ëllëgu politique ne 2024 ku mooy doon sànni tàccoom ngir doon fi président diggante ak 2022 jàpp ne socialiste bi mu doon moom Xalifa Sall ñàkk na fi terrain ci lu yaatu waaye nag taxawaayam ci wote député yu nu génn yéegalaat na cote ba autiste ci yéenekaay yi génnuk àddina ñàkk nañu kàngam ku leen daan tegtal waa grand place ne muy président Sall di soxna Aminata Touré ñoom ñëpp ànd maase delloo ko njukkal tis weneen di bi ci libération ak soxna su ndaa woowe Mami Doura Diallo faatu ca centre de santé bu Kédougou ci anam yu métti ca yéeme faatu mook doom ja yëpp ci jamono yu doon mucc ni ñu ko waxee ak hémorragie ak métti yoo xam ne ma ne su ko wax ci rajo tis wa nag am ñu ko doon nëpp nëppal waaye it am ko dem dëy ko procureur Baye Thiam yéene kaay bi ne ci la sàkku ci commandant gendarmerie mu dem ca centre de santé ba libération ne muy gynécologue ba di Léon Mbada Faye di anesthésiste bi Abdou Aziz Dioum naka noonu infirmier ba Bakary Diakhaté ñoom ñëpp ñu ngi ci garde à jërëjëf El Hadj Assane Gueye mbokk yéen jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média fii leen yem ak yéen ci xibaar yi bàyyi leen programme mais ci télévision Futur Média dañuy dem ci dëkk bu sell ba Touba bàyyi leen également ak Serigne Djili Niang ci concours international bi ñu jagleel njàngum alxuraan ni la kon programme bi di wéyee ba safar di jot ci TFM ak support groupe Futur Média te leen am fukki at ak juróom-ñeent ñi ñaanal ñëpp joyeux anniversaire.